xam sa démb xam xam sa démb xam xam sa tey xam production de Goethe Institut en collaboration avec les Archives nationales du Sénégal et Kër Leyti la maison de l'oralité et du patrimoine. àdduna yàgg na ci démb lay jóge déglu leen ma may ma nopp ma nettali leen jaar-jaaru Sénégal bu rafet bii sunu réew mii may leen ma nopp ma ànd ak ñu tukki ci jëf ju mag ju réew mi may leen ma nopp ñu dundalaat sunu xel ak sunu fàttaliku ñun doom yi fàttaliku ay doomam di góor di jigéen may leen ma nopp ñu wax ci ñi nga xam ne seen jëf rafet na ba nettali bi rafet may leen ma nopp ndax sunu taarix dafa rafet te jar a xam may leen ma nopp seen noppi xol nag laa soxla ngir ma ànd ak yéen ba ci suñ biir xolu démb may leen ma nopp ngir ñu mën a dund sunu tey may leen ma nopp ngir ñu mën a waajal sunu ëllëg ñun ñooy taarix. xam sa démb xam sa tey. war a waxtaanee tey jàmbaar yi tëdd caaro yi. caaro yi 44 bis bi njëkk ci weeru decembre décembre. 1944 ci lañ boo moon yi Afrique yi nga xam ne. dañoo demoon dimbali ji woon France ñu tuddee leen tirailleur tey ñu nettali seen jaar-jaar de su ko nettalee nag ni ko tugal bëgg a nettalee déedéet dañu koy nettalee ne su ko war a nettalee na mu xewee ak na mu amee nañu ko nëbbee ak na mu ñaawee kon nañu jàpp nañu jàpp ne xam sa démb xam sa tey mi waxtaane tey ndaanaan yu rëy di jàmbaar yi ñu tuddee woon tirailleur sénégalais di fàttale ne téeméeri junni ak fanweer ci ñoom ñoo demoon France dajale leen yóbbu leen ca ñaareelu xareb adduna ba xare booba amoon ci diggante atum junni ak juróom-ñeenti téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent jeex ci atum junni ak juróom-ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom di fàttali ne loolu tubaab tuddee seconde guerre mondiale ma nga amoon ci xeex bu nu doon xeex allemand yi te tubaab tuddee ko nazisme ñooñu nag li nu gëmoon mooy nit ko weex moo gën ku ne waaye nag bu ngeen déggee ñu ne tirailleur sénégalais du rek doomi Sénégal ak ñi juddoo Sénégal doomi der bu ñuul la dendu Afrique doon xeex ci raaya bi nga xam ne France ko tëggoon nag am na ci ñu daan jógee Sénégal am ñu jógee ca Soudan ñu tuddee ko Mali tey am ñu jógee Guinée am ñu jógee Mauritanie di Gànnaar am ñu jógee fañ daan wooyee Haute-Volta di Burkina Faso tey ak ñu jógee Côte d'Ivoire ak Niger kon jàmbaar yooyu ñu bëri ci ñoom ca toolu xare lañu des ñu bëri ci ñoom ña nga des ca fa nga xam ne almaa yi ñoom lañ tëggoon def ko ay kaso waaye rawoon na ay kaso ndax dañ fa daan boomi nit waaye bi geer bi jeexee atum junni ak juróom-ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom bi nga xamee ne na leen ci ndimbalu Afrique ndimbalu Angleterre ndimbalu États-Unis ak réew yu ni mel ñooña nga xam ne nag dañ leen a jàppoon tëjoon leen Allemagne dañ leen a yeewi ne leen dootu leen soldat ministre français bi nga xam ne moo yoroon bépp gox bu tubaab yi nootoon ne kon da leen di delloo ñu ñibbi seeni kër ndax pare nañ ci ñoom waaye nag ñeenti fani novembre ci atum junni ak juróom-ñeenti téeméer ñeent fukk ak ñeent mën nañ ci wax ne lu toll ci ñaar ci junniy soldat ca port bii nekk ca dëkk ba tudd Morle ca gox bi tudd Bretagne waaye nag booba li nguuru tubaab yi waxoon nguuru France dañ ne ah danañ leen fay lépp lu luñ leen yoral bu ngeen delloo fa ngeen dëkk xeex ngeen ñu amee leen ci payoor yéen soldaar yi nga xam ne dañ leen a tëjoon tëj boobu ñu leen tëj am ngeen ci payoor yeewi bi ñu leen di yeewi am ngeen ci payoor waaye nag téye bi ñu leen téye ngeen nekkal France di xeex ci raayam am ngeen ci payoor ca loola coow la bëri bi ñu xamee ne tubaab bi narut a mu am ca nag ñetti téeméer ak fukki ak juróomi juróomi soldaar yoo xam ne ñoom dañoo lank ne du duñu yéeg mukk ci saxaaru géej gii di bato bi leen war a delloo si Afrique te kenn fayu leen soo la bëri wax ja bëri waaye ñu mujj rek ci Circassia ñu teg leen ca mu dépare France juróomi fani novembre 1944 lu mat junni ak juróom-ñaar téeméer ca ñoom ña ngay wàññeeku di ñibbi si am yaakaar ne bu ñëwee ñu fay leen ba gaal ga taxaw taxawaat ñetteelu taxaw ba nga am Casablanca ca Maroc ñeenti téeméer ca ñoom lank ne dootuñu yéeg ndax xam nañ ne kenn du leen fay buñ leen fayul duñu yéeg ñooña fa lañ des Thiès saxaaru géej googu di Circassia ak kon ba muy déparé Casablanca ñeenti téeméer yéegunu waaye mu ñëw Dakar agsi na fi 16 novembre ci li ñu lattali ñoom tubaab yi te am nañu ci àndut waaye ba mu agsee 16 novembre booba nañu jàpp ne junni ak ñetti téeméeri soldaar ci biir ñooña nga xam ne ña nga agsi caaro yi ñu njëkk ñi ñaar fukki fan ak benn ci weeru novembre ci 1944 caaro yi nag moog biir Dakar fukki kilomètre la ak juróom kon ñaar fukki fan ak juróom ñett ci weeru novembre woowu ah bi nga xamee ne nag ñoom jot nañ ndigal ne na ñibbi sa réew ma nga jóge woon te boo fa àggee danañ la fay lan la war a fay tubaab yi nag wax leen ne leen duñ leen fay lu dul delluwun ba ca dëkk yéen jóge woon juróomi téeméer ca soldaar ya danoo lànk ne ñoom duñu yéeg ci gaal gi jëm ba ma Bamako bi nga xamee ne nag dëgër nañ bopp ñu wax a wax a wax kenn mënu ci dara ñu xam ne tubaab bi njub lang ak njuuj njaaj la nar kilifa yi militaires yi ne nag lii buñ ko bàyyee mu wéy bu ëllëgee ko am lu la da nga dal ci suñ kaw loolu nag moo sunu nekk fii ci Afrique dootu neex xanaa kon mën nañoo jàpp ne 28 novembre booba bis bu rëy la waaye li am mooy fan wi njëkk ci weeru décembre 1944 laataa fajar di jot lu doy waar dafa am ndax tubaab bi dañoo jël ay yeneen soldaar yoo xam ne li ñu ci ngànnaay dañoo mel na ñuy dem guerre toll nañu ci junni boo xam ne am na ci téeméer ak ñaar fukki yoo xam ne ay tubaab yu weex tàll lañ yor nag ay woto yoo xam ne ñett ya ña nga teg ay mëq doomi ñu tuddee mitrailleuse ak nag ak nag char de combat boo xam ne Amérique la jóge teg ca yeneen ñaari woto yoo xam ne ay militaire ca ne te boo ca dóoree ndell du dugg dañ ko tul ñooña nag ñoo wër camp caaro yi fekk tirailleurs yaa ngi nelaw ba fajar ne cooy jëm juróom-ñaari waxtu ñu ne leen génn leen ngeen taxaw yéen ñëpp ci digg camp bi ba ko defee ñu mat junni taxaw ca noona la char de combat yi dugg ci biir camp bi tubaab yi ne dañ leen di tiital waaye boobu xamuñu ne ay gor lañ ko séqal booba xamuñu ne doomi Afrique lañ ko séqal jàmbaar yu dul daw lañ ko séqal ba 9 heures ci njolloor gi tubaab bi jaar di joxe ndigal na nañu rey kun mën a rey rek sox ya tàkk sox ya tàkk sox ya tàkk bale ay dal jàmbaar yi nga xam ne ña ngay jéem delluwaat ca biir néeg ya sax dañ leen a boom ñoom ñëpp ñu tëdd mel ne rek tubaab bi de moom ci ay naxeem nee na fanweer ak juróom a fa dee ñu ne ko foo leen suul mun a caaro ñu ne ko ñaataa ci gaañu mun ñaar fukk ak ñeent ñu ne ko ñaata nga ci jàpp mu ne ñeent fukk ak juróom noo leen def ñu ne ñii ñoo jiite woon kon danañ leen yóbbu ndax ak kompaloo woon ngir ñu mën koo gëm nag danañ leen atte nuñ leen di attee ñii de danañ leen tëj at ñii danañ leen tëj fukki at te noona nag la demee ndax tribunal militaire la ñu teg ban ko tegee avocat bu mag bii maître Lamine Gueye jàmbaar ji amul woon lu muy ragal taxawu ñooña ne lii du dëgg lii du yoon kenn gëmul li ngeen wax kon nag mën noo jàpp ne li tubaab bi wax dara du ci dëgg ndax ñooñu ñu tëj ñett dee nañ ci ci biir kaso am nañ ci ñaar ñoo xam ne sax 1946 ak ca weeru juin 1947 dañoo bàyyi ñenn ñi fukki ak juróom nga xam ne seen kaso jeexagul woon ñu bàyyi leen ginnaaw bi président français bii di Vincent Auriol ñëwee Dakar kon ana ñu mën a jàpp ñu mën a jàpp ne France ak ñi ko jiite li ñu joxe ci nit ñu dee waxuñu dëgg li nu nëbb ci ay këyit yu ko firndeel kenn xamul nu mu toll bëggoon a nëbb rek mbonte googu ñu def ak deret yi ñu tuur nu mu bëree li am ba am mooy ñoom jéem nañoo wàññi ngir nit ñi bañ a jàpp ne ñoom waa France lii nu def lu bon la te rey nañ ay junni junniy nit ñu bëgg a wax rek ne ay nit ñu doon fipp la ñu dal ci seen kaw waaye nag seede yu ko fekkee ak ñi yoroon këyit yu nu bind ak yan ca mën a jot wax nañ ne ñeenti téeméer keroog lañ ca rey ca fajar ga fii ci caaro yi gas nag ay pax dëxëñ leen ca suul leen ca ne kuy suul medd ndax kenn wutalu leen kenn ku ne sa bàmmeel loola nag li muy wane mooy leer ne ba leer ne tubaab bi lii mu def caaroy 44 musiba la boom la boom goo xam ne larme France moo ko def jàkkaarloog ñoo xam ne yoru ñuy ngànnaay di ay téeméeri téeméer nga boom leen dóor ñii ci dënn ñii ci bopp ñii ci tànk ñëpp tëdd dee nga bëgg taxaw nag tey ne da nga koy nëbb nëbb gu bon nag nëbb njublang nëbb ku dul wax dëgg bëgg gëmloo ne ñooña ña ca dee bëriwun mooy waa France li ñu jàpp de ne ñeent ba juróomi at yeñee def tugal sonn ci sedd bi ci xeex bi ba nga jotaat sa bopp yow France boo fexee ba ñuy ñibbi seen kër nga dóor leen i bal ñu dee ñu yàkkamte woon a gis seen njaboot nga bëgg a taxaw neenal ko a mun munta ne danañ taxaw ba kenn du ko fàtte loo ca war a fay da nga ko fay kenn du la ko baal kenn du la ko jéggal xamal ne man ngaa suul ker waaye suul ker du ko teree feeñ caaroy 44 jot na tubaab bi nit jot na ña ca deewoon ñu setal seen der setal ko ba ñëpp xam ne duñu woon ñuy xeex ndax xaalis jàmbaar yu demoon xeexi la am seen warugar ak seeni yelleef kenn joxu leen ko ñu taxaw jaakaarloog tubaab bi tubaab bi bett leen boom leen lii mooy caaray 44 nangu ko mooy dëgg gi bañ ko mooy dëgg gi lii moo doon taarixu caaray 44 nett li ko doon wareef ci kenn ku ne ci ñun xëy na tey ca caaro yi am na ñoo xam ne ña nga tabax seeni kër ca kaw bàmmeelu ñooñu ñu boom te kenn xamul fu ñu leen suul li ñu war nag mooy suli leen ba xam fu ñu leen denc warmaal leen ba man leen a jébbal seeni sëtaat nëbb nañ ñu leen waaye ñun am nañ pexey tey gëstu ba xam dëgg gi bind ko ci téere nettali ko def ko ci ay kilip Caaroy 44 kenn du leen fàtte gàcce ngaalaama ku leen bëgg a fàtte ñun dinañ ko fàttali yéen ay kan jàmbaar yi demoon te ñu bett leen boom leen. xam sa démb xam sa tey di waxtaan wu leen Goethe may. ànd ci ak archive national du Sénégal ak it Kër Leyti maison de l'oralité et du patrimoine direction artistique ak présentation Massamba Gueye assistant Abou Soumaré régie technique la Factory bu Ousmane Faye ci xarala gi Roland Sagna coordonnatrice Bouye Fall Goethe Institut